l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal point net salaamaaleykum mbokk internet bi ñuy safoo di suivre suñu chaîne bi di Sunugal 24 point net mbégteeg bànneex leen nga xamante ni xam-xam dafa màcc lool si wàllu faju cosaan ak fii ci réew mi ak bitim réew muy Cheikh Omar Diallo xam lool si wàllu faju cosaan ak fii ci réew mi ak bitim moom lañ dalal sunu émission tey xale moom bi ñëw di am mbégte di ko dalal di ko wax ni balaa ñuy dugg si laaj beeg di la suivre Sunugal 24 point net Cheikh bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman waaleykum salaam wa rahmatullah ñu leen di fay nuyoo di nuyu mbokk yi ñu seetaan si biir réew mi ak bitim réew mi yëpp bisimilah. jërëjëf kooku mooy Cheikh Omar Diallo xam-xamam màcc lool si wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi nag ak bitim ñu dugg ci laaj beeg tontu bi maanaam wàllu ñaan yàlla yow sa xam-xam lool si ñaan yàlla ba képp koo ñaanal yàlla aajoom fajoom lu mel lu waral li ni mel ñaan yàlla. waaw kay jërëjëf sëriñ bi ñu ngi leen bi xam naa ni sa bàkkuñu waaye boo gisee ñu yëngatu si wàllum ñaan yàlla. Mm-hmm. gannaaw ñu bañ nekkee ndaw lañu suñ papa dugal daara. Mm-hmm. ñu ngi jaar nag daara ju ñu wax kër moor mbay Mbaye si si Diourbel hmm. daara ju moom defe naa ñëpp xam nañ ko hmm. bañ fa paree na wax dëgg yàlla tëre nañ kaamil bi hmm. bañ tëree kaamil ba pare euh, xam nga alxuraan moom comme ni ma koy faral di waxee rek yemul si jàngara ak firi yoon wu ñu soog mooy gëstu xam-xam lasaraar dugg nañ àll bi fépp fu borom xam-xam nekk dem nañ fa lépp lu ñu war a xam ah waxoon ne xam ne lépp waaye am na lu ñu yàlla may ndax yàlla moo ne wan nunasilu min alqurani maa huwa sifaun wa rahmatul lil muminina mm. alquran ji maa ko wàccee pour muy faj seeni jàngoro mm. aaju bu nit mën a am incha allah gëstu nañ ko boo ñëwee rek incha allah danañ xool aay lu yàlla wax rek mm. danañ si méngoo yow ñu fajal la sa aajo incha allah loolu seex loolu am na solo mais wàllum listixaar moom tamit dégg naa danga ciy dox bu baax a baax listixaar waaw listixaar waaw loolu lu baax la ndax nit bala ngay dugg si mbir moo xam da nga bëgg takk soxna moo xam da nga lijjanti dara lu ma mën a doon wala ngay lijjanti dara muy am ay jafe-jafe mm-hmm. war nga di xool xam say mbir daal waaw loolu lu baax la ndax euh, ñu ngi koy defee ñun si wàllu alxuraanu karim lañ koy def am na nag yeneen tur yoo xamante ni mën nañ koo def saa ñu julli mm-hmm. waaw yooyu ay talsam la mën nga koy jàng lim bu la wax mm-hmm. loolu boo tëddee guddi da nga gis lu leer ndax nit ki man su ma mooy bu ma joxee turam turu yaayam rek ak date de naissance bi su ma woowaatee ëllëg si dinaa ko wax lu leer. man nañ ci man am nañ si ay secret yoo xamante da ngay julli ñaari rakka. Mm-hmm. yooyu tamit dañ koy def beneen bi tamit boo bëggee tamit ñu wax la say sarax. Mm-hmm. parce que ni koo gis rek am na bunt. am na li ñuy wax ñeenti biddiw yi presque si ni doomu aadama yëpp si leen tënk mooy biddiw yi ñu wax awaayu maayu. Mm-hmm. naar bi trois bi. bu si nekk rek. am na am na foo taxawee. léegi mm. boo ñëwee daneen la wax sa sarax ndax sarax la dafay ubbi wërsëg. waa am na bunt yoo xamante ni boo koy faral di def. Mm. say sarax yoo boo koy def say mbir dafay le dafay leer. fekkee dangay ngay lijjanti dara muy të. am na sa booy faral di def say bunt yenn sarax bi ñu la koy digal boo koy def. da ngay gis lépp looy dugg dafay yomb lépp looy lijjanti dafay yomb daal. képp ku bëgg a xam say bunt wala ngay lese xaarlu ngay seetlu lépp dañ si yëngu daal. boo ñëwee danañ la leeralal. loolu am na solo kooku woy Cheikh Omar Diallo xam-xamam màcc loolu. Cheikh bi ñu dem si ki nga xamante ni dafa bëgg a bayra te boo nee bayra wax kaaraange. Mhm. ñoom ñaar ñoo ànd bayra ak kaaraange moom nan nga siy liggéeyal askan bi bayra ak kaaraange ci ko bëgg. waaw jërëjëf euh, Bayre. Euh, hmm. loolu si alxuraanu karim rek si la ñuy yëngu. yàlla moo ne maa farat naa fi kitaab min sayin. Hmm. alxuraan jii moom bàyyiwul dara. parce que am na baat bi ñuy wax yaa suqa bidu. Hmm. baat boobu baatu talsam la man ko koo bindee euh, mille cent os. xadd sax faaxu ban. moom it am na lim boo koy bindee nga wut kawaru tubaab. nga di nga def ko si nga di koy jëfandikoo loolu bayre bu garaaw la. loolu karawu tubaab moom yombul di. waaw loolu ñaareel xam naa boo demee su ñuy war rek. Mhm. salon yi. Mhm. dañ koy am. Mhm. loolu jëfewul xam naa ne ama man ñu ma koy lijjanti bëri na. waaw bay bëri na tamit yeneen ay yoo xamante ñu ngi si biir alxuraanu karim ay allahuma rabbana ansil xaleyna maidatan mina sama yooyu tamit. ay bayra la ay ah, rabbana iftax ba si isa dia yooyu yëpp bayra la yoo xam ne yoo am am solo la. moo fekkee da nga da ngaa tëju bëgg wërsëg bëgg yokkute. boo ñu wooyee incha allah danañ dugg si alxuraan bi am nañ ay am na yoo xamante si sax. Mm-hmm. mën naa ne ay ay xawaatim la. ay yoo xam ne musalas la da ngay mm-hmm. donc boo ko bindee pare nga dugal sa aaji si biir. Mm-hmm. lépp am na yoo xam ne bi ñu la ko joxee nga di ko sax nga mën leen a wér daal yenn lim yoo xamante ni foo jaar di nga ubbeeku. waaw wàllu bayre wàllu yokkute daal. képp koo xam ne yittewoo nga ko ah. incha allah boo ñëwee danañ la jàppale ndax des fois da dégg nit ñi seen jàmbat yu bëri mënuma am dara léeg laa mm-hmm. waaye dama ne dañu warta dem dañ dem fu ñu warta dem rek ndax alxuraan bi moom lépp a ngi si day ubbi wërsëg day indi yokkute lépp waaw mm-hmm. moom daal lépp lu waaye di yëngatu nga bëgg see am ndam nga bëgg avancement wàllu yokkate mm-hmm. yor nañ fi yoo xamante ne liggéey nañ ba pare bàyyi nañ ko fi fàggu nañ ko fi teg ko fi boo ñëwee incha allah danañ la ko jox danaa am leneen lu may àndal nag. Hmm. jërëjëf Cheikh bi mais Cheikh bi ki nga xamante ni rab da jàpp maanaam sonoo ko loolu. mais hmm. kooku tamit yaa ngi ciy liggéey lu am solo rab wàllum rab. waaw wàllu rab loolu xam naa ne jamono ji bëri na trop ndax seytaan yi moom. Hmm. Euh, loolu képp koo xamante ne am nga ka. Euh, il faut nga jóg si. ndax benn dina la yàqal sa àdduna. dinay tëj wërsëg wërsëg. beneen bi tamit lu am am solo muy ponk farat sa wàllu diine waaw waaw loolu tamit dana ndax euh, des fois am na ñoo xam ne ñoom leen jàpp mooy fekkee da ngay tëdd guddi di gént seq mm-hmm. ñeneen mm-hmm. yooyu sobe la waaw foo toll daal dalay dalay dalay tilimdoo te yooyu baaxul mm-hmm. waaw bu fekkee jigéen ji tamit mën na la topp pour nga am euh, boroom kër dafay am jafe-jafe waaw yooyu tamit bu dee góor gi tamit mën na la toog foo dem tamit ñu gàntal la wala ngay faral di mer lu bëri mm-hmm. li ngay lijjanti dara muy të daa bëri na en tout cas naa ne jigéen ñi la gën a sonal mm-hmm. waaye ñun euh, dañ koy faj si lu gaaw ndax euh, secret yu ñu si yore secret mag la mm-hmm. am na ñu ay carafil yooyu yëpp am nañ ko am na yoo xamante ni yoo xamante ay xawaatin musalab bëri na ay yoo xamante ni mu ngi si alxuraan bi da nga koy euh, toppante am na noo koy liggéeyee. Mm-hmm. ba si am na ay bu nekk suuratu rahmaan yaa masaral jinni wa insi ina sasatum. Mm-hmm. an tan fu soo min na aqateeri samawaati wala di fan fu soo laa tan fu soo ko nga xaaj ko di koy naan di mm-hmm. ne laqat jaakum liñ koy nga di koy suuroo. ba si suuratul jinne parce que yàlla moo ne wa maa xalaqatul jinna ko rab lu am la man maa bind nit ak jinne pour ñu di ma jaam nu ma amee si jullit ñoo xam ne am ñoo xam ne yàlla sant di nga ko def amee si rab yi ñoo xamante ni dañ lay lor di la indil jafe-jafe mm. képp ku ma dal koo mm. ñëwee si ñun dinañ la ko fajal ba nga sant yàlla ndax ñu mm. mu koy fajal bëri na si alxuraan yu kërim laa koy fajal ndax alxuraan leeral leeral lënd mënuñoo ànd mais danga gis koo xamante ne jigéen boo xamante ne maanaam pour mu am borom kër da koy jafeloo da gis ñoo xam ne dañuy dem am borom kër ak jigéen ji nga xamante ni ndeysaan day dem bëgg am doom doom jafe ko loolu day yàgg si néegu sëyam du am doom mais loolu rab da gars yi dañ naan rab def mais loolu lu waral li ni mel loolu waaw loolu rab da koy koy jun sax ndax mën na la topp bis bu ëmbee moo hmm. am mu indi mu mu ëmbi bi am jafe-jafe hmm. loolu ñun ñuy gëstu xam-xam hmm. dañuy jàngal lépp rab bu la toppee kaay yu may def si yow lu mu lay loral lépp loolu dafay faral di am lu si bëri rab da koy def nag waaye beneen bi tamit yàlla nattu yàlla tamit mën na si dugg ndax euh, yónnent yàlla Ibrahima ba koy yàlla di may doom hmm. parce que am na téeméeri at yu manqué quelque hmm. waaye yónnent nag comme que ñoom la ko yàlla da waxuma laa ñun nag waaye am na yoo xamante ne nag parce hmm. nit ki boo feebaree lépp li nga yëg sa yaram yow yaa ko xam waaw am na jafe-jafe yoo xam ne loolu lu lay dal yow xam nga man yoo xam ne mën naa ne jafe-jafe la yoo xamante ne dalay gaar waaye yooyu bi ñu ko xoolee pare biñ la ko fayee pare am na ay yoo xamante ni kon nu ma la ko waxee rek maa faral naa fi kitaab min sayin mm. alxuraan lépp nga ci biir am yoo xamante ni loo ko boo koy jëfandikoo mm. Euh, bu fekkee da nga ci bëgg aajo ah, boo ci bëgg rek moo xam wàllu doom nga bëgg. parce que mhm. surtout xadd sa miyaa man dama ko ciy faj. Mhm. bu fekkee da nga ko bindoo pare góor gee jigéen ñi ñu di di ko jëfandikoo. Mhm. bala yàgg yàlla mën na dogal ngeen am doom. am na aay bu ñuy wax lillaay yaxlu. sama lillaay lillaay mulk sama waati wala de. yaxlu ko maa yasaaw yaxaabu. aay boobu moom ci sóoratu suraa. aay boobu tamit dama ci faj ku am doom. waaw am doom daal man dama ciy yëngu. képp koo xamante ni bëgg ko. ah boo ñëwee rek incha allah bi ñu xoolee lu fekkente ne da nga si problème. Hmm. bu ñu xoolee lépp luy jafe-jafe yi. mën na dafa loo xam ne boo koy naan. da ànd bu dee jigéen ju bëgg borom kër tamit. Hmm. loolu tamit incha allah dañ si yëngu ndax hmm. yàlla moo ne wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. jigéen ñaar ñuy ànd maa ab bu ci amoo rek. Euh, kooku seytaan da ci am wàll léegi nag fekkente ne danga ngaa sa yaa sa soxna da ngeen juyoo wala kër gi di coow wala nga bëgg nit koo xamante da nga ko bëgg a def euh, bëgg a takk hmm. yooyu yëpp dañ ci yëngu hmm. ndax euh, am na kii aaya bi yàlla di wax fee kii sóoratul kii mu ngi si sóoratu waaxea fii si dira max doori wa tari mandoori wa hmm. sili mandoori aay ba mën nga bind fukk ak ñeent ba pare nga ubbi xobi groupe bi mayee si jàkk kooku am na nu ma koy liggéey balay fukki fan ak ñeent yàlla dina la tànnal sëriñ bu ah, baax ah. aay boobu moom aay bu am solo la si ku jigéen di bëgg borom kër hmm. waa yooyu tamit ma dama si yëngu ndax am na ay yaay waa naa si a rëbëkum am na hmm. benn musalas bu ñu si boole duwal sa aajo tamit hmm. yoon yoon wu gaarul la pour jigéen di bëgg borom kër am na yoo xam ne ay jar la mañ la ko defal def si xorom nga di koy jëfandikoo. Hmm. waaw bayra day dox sa digganteeg nit ñi bu dee jigéen ji. waaw loolu daal dañ si yëngu macha allah. jërëjëf koo koy Cheikh Omar Diallo xam-xam màcc lool jëm ci wàllu faj cosaan ak aada fii ci nag ak bitim réew ku ko bëgg a jot da nga koy jot si numéro bii muy 78 211 70 42 ma bamtuwaat la ko 78 211 70 42 42. xaw képp ko woo yow mi nekk bitim réew ba lépp numéro bi am na whatsapp boo ko bëgg a jokkoo rek incha allah boo ko wooyee si di ngeen sa sa aajo dina faju seet ba léegi ñu xuus si waxtaan bi maanaam ki nga xamante ni góor bi nga xam ne ndeysaan dafa néew kattan maanaam day mën boppam dem ba si yëgg dootul mënati boppam muy néew kattan mu doon feebar bu complexe kooku moom dañ ciy dox bu baax néew kattan waa loolu loolu kaay yooyu yi ñu koy gis bëri na hmm. ndax ñu koy jàmbat bëri na surtout si jeunes yi waaw waaw ndax néew kattan baaxul mag ñi sax ñuy wax njaq mm-hmm. dañ ko daan am waaye mën naa ne jamono ji am na ñoo xam ne dañ ko sàggane trop ndax euh, man dama koy faj ndax am na ay bi yàlla di wax fa ay noonu bi xawatin mm-hmm. ay boobu muy suratul kafe mm-hmm. boo ko liggéey mi cent onze am na ren yu muy àndal bu dee néew kàttan rek nga si bëgg moom moom am na solo am na doole trop. moo du doon ay du doon maanaam loo faj boo xam ne ay calmants lay doon maanaam da ngay mën sa bopp dootoo jékki-jékki dootoo mënante encore sa bopp. waaw doon lu faj lu lu dem ci yow difficilement quoi maanaam. waaw bu dee loo xam ne da koy judduwaale am yoo xam ne moom boo bu dee feebar la boo xam ne dalaa gaar. Hmm. Euh, kooku moom dañ koy faj dañ koy faj bu wér ndax euh, loolu nattu la rek. nattu la waaw bu dee feebar la boo xam ne dalaa gaar bëri nañ ci gëstu nañ xam-xam bi am na yoo xamante ni mu ngi fi. am na ñu liggéey ba fàgg ba teg ko fi waaye bu dee loolu rek nga ah yoo xamante ni moom moom boo koy que alxuraan rek lañ koy fajee ndax bu ñu la ko liggéey ba am na ren yu muy àndal kooku moom boo koy naan moom nga yëg sa bopp bu baax moom moom macha allah am na doole trop moo ko liggéey bëri na waaye sant nañu waaw man mu bëri naa si ay yoo xamante ni ay xawaatim la kon noonu la ko waxee rek bëri na ay ay yu fi nekk yoo xam ne gëstu nañ ko daal ba teg ko fi waaw bu dee feebar la boo xam ne dalaa sonal boo ñëwee bu ma ko xoolee ba xam jafe-jafe yi am hmm. dama la koy liggéeyal nga jox la ko ma wax la ngay respect traitement bi rek. traitement bi wax dëgg yàlla moom boo koy naan moom di yëg sa bopp. di nga yëg sa bopp dëgg la mais ki nga xamante ni cat da ko jàpp sonal ko lool. waaw gis koo xamante ni ndeysaan dafa dem yu am yoonam bu leer nañ jékki-jékki cat jàpp ko. yoon lépp yàqu cat moom tamit dañ ci yëngatu bu baax. wàllu waaw loolu moom nekk na feebar boo xam ne moom ñu mm-hmm. may gàllankoor bëri na mën naa ne ñu mu gën a sonal mooy ñiy faral di feeñ. bu fekkee da ngay faral di feeñ écran lu bari mm-hmm. nit ñi di lay xool. Mm-hmm. kooku loolu si musal nga wut njaq. bu fekkee da ngay faral di wax nit ñi di dégg sa voix wala nit ñi di la waxee lu bëri. kooku moom parce que des fois ngay dégg koo xamante ni yàlla mayoon na ko teraanga. koo xamante ni ku siiwloo da ngay dem ba mu yàgg dootoo ko dégg. Mm. ko yooyu mën naa ne kaaraange musluwaay la manqué. Mm. parce que yooyu dafa baax si nit. parce que mm. am na bët yoo xamante bi lay xool wala yenn làmmiñ yi di la toujours tudd. di la tudd kooku ba amul musluwaay rek. jafe-jafe da lay sonal. da waaye yooyu nag euh, képp ku ko bëgg na ñu fi fàggu ba teg ko fi. incha allah waaw yooyu moom même mm. Yacine war radda bii. Mm. kooku yoon bu rëy rëy la. pour pour cat nga bind sooratu saafaati aaye bu ne sax maa jotum bi sóoru. Mm. inna laa sayibtuloo inna laa islam bala muslimin aaye boobu aaye boobu am na ren yu may àndal. ay kii daal kooku moom boo koy jëfandikoo macha allah bu dee seytaan da laa topp yooyu daal. da koy dindi ba mu set wecc jërëjëf Cheikh bi loolu am na solo mais wàllum këyit tamit dañ nga ciy yëngatu ki mi nga xam ne ki nga xamante ni nekk na bitim doo yàgg fa soxla ay këyit mu jafe ko ak ki nga xamante ni tamit nekk na fii mooy si si si réew mi bëgg tamit këyit pour dem du teeg leneen lu mu mënti doon kooku tamit da nga ciy yëngatu bu baax wàllum këyit waaw loolu euh, baat boobu euh, kii loolu dama si ñaan hmm. ndax euh, am na lu ñu si yàlla xamal am na ay bu nekk suratul ki baqara Euh, aaya boobu euh, dama ko ci liggéey ndax euh, am na lim boo koy wér de yow bu fekkee dëkk boo mën a nekk rek. boo mën a ne waaw am na lim boo xamante ni boo koy jàng. Mhm. yàlla da lay jàppandal lu jëm si wàllu këyit. waaw waaw yooyu moom am na secret yoo xamante dëkk boo mën a nekk am na mhm. am na yeneen tur yoo xamante ni yore nañ ko fi. Mhm. léegi na beneen bi te am na yoo xamante mën nañ la bi na saafara nga di koy jëfandikoo. bu dee da ngay lijjanti dara mu ta wala wàllu këyit wàllu yokkati. ay boobu moom réew moo mën a nekk. boo koy jàng lim bi la wax. bu dee da ngay lijjanti kayit di nga ko am. bu dee da nga bëgg place bu nga bëgg yokkate di nga ko am. di ko am waaye boobu moom wax dëgg yàlla am na solo trop. yoora nañ ko fi xam bu wér la. Mm-hmm. waaye wàllu kayit moom macha allah yàlla may na am na xaaj mi ñëw war a fanaaw makkaanal xal yi mën nañ ko def benn musalas. Mm-hmm. waaw ay boobu ay bu am solo la. war a fanaaw makkaanal yi mu ngi suratu Mariama. Mm-hmm. yu dox si wàllu examen wàllu kayit wàllu avancement bu dee da ngay ñaani visa yëpp daal am na yoon wi ñu koy liggéey du war sa aajo boo ko takkee wala nga jëfandikoo ko boole ko xorom macha allah daal gaaw na si trop jërëjëf Cheikh bi ko koy Cheikh Omar Diallo xam-xam màcc lool Cheikh bi xam naa li ñu dee si waxtu xam naa bariwul temps bi may ñu ko waaye danga may tënkal lii rek maanaam wàllum ki na xel bu xelam xelam màcc maanaam maanaam loolu tamit dégg naa yaa ngi ciy liggéey lu am solo maanaam neexal xelu doomu aadama mhm. waaw waaw mooy mooy wàllu kiis ndax euh, loolu mën naa ne euh, baax na trop mhm. man ñun ñi di wax yow sa dañ koy naan ndax kiis loolu am am solo la mhm. ndax des fois da ngay gis xale boo xam ne dina bëgg jàng waaye. yàlla mooy dugal ci moom. xel moo dul neex. Mm. wala lépp lu mu xam balay yàgg mu fàtte ko. Mm. loolu yàlla da koy tàgg si yenn nit ñi. waaye ay loolu moo wax dëgg yàlla képp koo xam ne bëgg nga ko. Mm. Ah am na kiis yu am doole yu fi nekk. man sóoratul iqra bi loolu looy tax la am looy naan. yi ngeen naan la ne suñu kiis da koy naan. bëri na fi kiis yoo xamante ni mën nga ko def boole ginaar nga xewlu ko. ay sa nuquri ko falaatan saa yooyu kiis la ay alal nasara am na kiis yoo xam mën nga koy boole sam-sam ndoxu taw ndoxu géej bëri si ay yoon yoo xam ne daal tiisi amdol boo koy naan bu fekkee da ngaa jubati sax hmm, da dangay hmm. da ngay jub koj waaw hmm. kiis daal wax dëgg yàlla am nañ si bëri nañ si euh, trop macha allah képp boo bëgg boo ñëwee boo baamee xale buy jàng bu dee lépp lu mu xam fàtte ko am na kiis bu fi nekk bu koy naan rek bu koy naan saafara jërëjëf Cheikh bi loolu am na solo xam naa ne benn ponk moom desel mooy lu am solo loo xam ne du ma dem te laaju ma la ko muy jaaro bi ak ak téere bu doywaat bi nga nombo bi maanaam bu doywaat bi ngay defaral askan bi ñu siy am jël si ay résultats yu leer nañ waaw loolu moom ci lan la yëngu moom jaaro beeg moom. waaw boo gisee jaaro bi ñu koy faral di boole ndomb gi mooy. Mm-hmm. jaaro bi dafa yéeme. dafa yéeme ndax wax dëgg yàlla macha allah xam-xam bu wér la. ndax bu wér da koy liggéeyal boo ñu xamee sa tur. Mm-hmm. ak sa date de yi. Mm-hmm. ndax aajo la boo xamante ne am na ñu koy liggéey bañ la ko joxee boo ko takkee. jaaru xaalis lay doon bu dee da ngay lijjanti këyit muy jafe boo ko takkee dina dem boo bëggee di nga ko am boo bëggee yokkute wàllu avancement même lépp jaaru bi si wàllu wàllu yow yokkute rek si dox macha allah daal ndomb gi tamit dina hmm. la si fara daan léegi quraan la raadu ko ila maadin ba si salaaman xawlan yooyu yëpp ko boo ko takkee réew moo mën a ne bi di nga ñëw boo bëggee kaaraange lépp hmm. macha allah lu ñu si mën a wax bëri na waaye daru xaj si émission hmm, képp ku ko xam waaw képp ko ko bëgg a xam daa nga yore bis boo ko yoree ah di nga yëg macha allah daal moom am na solo daal ndax. jaaru euh, bu yéeme la. Mm-hmm. jërëjëf kooku da ci dalaloon suñu émission xale bu ñëw mooy Cheikh Omar Diallo xam-xam màcc loolu jëm ci wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi nag ak bitim réew moom lañ dalaloon tey suñu émission xale bu ñëw di am mbégte di ko dalal di ko wax ni numéro téléphone yaa ngi noonu di affiche ci baaru écran mooy 78 211 70 42 ma bamtuwaat la ko 78 211 70 42 xam naa ni dañ leen jox dig daje ba beneen yoon bi seen bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk waaw ñu ngi fay nuyu mbokk yi ñu doon déglu yëpp ñu leen sant leen gërëm dina wax ne lépp luñ fi wax rek muy jumte ñu ngi jégalu bu baax lépp lu fi waaye xamee rek si li ñu wax boo ko jëfandiko yàlla na ko yàlla kii nangu ñu ngi sant mbokk yi ñu doon déglu si biir réew mi ak biti réew mi yëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf ki ñu daal mooy Cheikh Omar Diallo xam-xam màcc loolu kenn dootu ko waxati xam naa dañ leen jox diitu si beneen borom xam-xam incha allah fii ci Sunugal 24 sunugal 24 point net sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal 24 point